ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi euh, communauté bi ñuy wax askan bi ñuy wootee askanu Guinée ci fii ci Sénégal ñoo fi toog tey pour waxtaan ak askan bi ñuy wootee askanu Sénégal euh, ñiy woote seen bopp ay guinéen tey ndax naqarlu nañu xew-xew yi am ak fitna bi am fii ci Sénégal te daal di jébbal seen njël seen njaal ci askan ci nit ñi nga xam ne ñàkk nañu surtout ci peuple sénégalais ñi ngi oote di ñaan képp kuy senegale na nga delloo si ci sa cosaan loo xam ne li ko lal moo doon waxtaan ak jàmm ngir mu ñu mën a faj suñuy jafe-jafe suñu dëkk yi ñuy wax Sénégal ak Guinée dañoo laaj ñu daal di dellu ci li nga xam ne mooy suñu cosaan surtout ci caada ak ci nite bi Afrique amoon pour mun a génnee ay yoon yu dëggu yu nu mën a may ñu tabax jàmm guy yàgg jàmm nag ku ko dégg moom mooy laytaay li ñuy wax koom-koom ak jëmale askan ca kanam pour jàmm mën a am dañ ko war a tabax ci kaw ñu daldi delluwaat ci suñuy cosaan delluwaat ci suñuy sañ-sañ delluwaat ci ay jëkko jikko yooyu ñu xam fii ci Sénégal ak ci Afrique de l'Ouest bii ñu nekk mooy ñu dañuy jiital bëggante dañuy jiital nawloo surtout nag ñu lal ko ci dëgg ak teraanga ak moom sa bopp ak li ñu ootee tey àq ak yelleefu doomu aadama loolu yëpp ñu ngi koy teg ci kaw muñalante ak àndandoo ngir loolu nag moo tax di gën a bëri ci ñun dañuy dañuy dàq li ñu woowee violence pour mën a moytu ay xeex yi am ci diggante nit ñi ngir mun a gis ay solution ci suñuy problème te benn yoon rek lañ ko mën a def mooy waxtaan ak li tubaab di wax négociation te garantir képp kuy doomu aadama kuy dund fii mu mën a bokk ci askan wi mu mun bokk ci réew mi daal di bokk ci développement réew mi ci boppam kon dañu war a comprendre ni Sénégal dëkk bi ñu woowee Sénégal ak Guinée peuple yi fa nekk benn peuple la pour clarifier mu leer ci bopp askan bi suñu delloo suñu cosaan kooku nekkul ci déclaration ba mën maa ko ci yokk su ñoo leen déggee lu ñu wax réew deeni ko ki ñu wax tel Koli Tengela Ba Fuuta Jalon lu jóge ñëw senegal taxawul fi réew deeni am El Hadj Omar Fuutiw Taal bi mu demee Fuuta la ñëw toog suñuy maam daggal ko ab suuf fële ca dingiraay Thierno Souleymane Baal Fuuta la ñëwoon toog fa pour jàng nan la révolution islamique amee kon nag ñaari askan wi ñuy wax muy li tubaab bi tuddee ab sénégalais ak li tubaab bi tuddee ak guinéen benn askan la mënuñu leen xàjjale kon nag ñu ngi wax suñu mbokk yi ñi nekk ay guinéen maanaam ñoo xam ne seen maam ñaa ngi jógewoon woon ñu ñëw fii wala seen papa jóge Guinée ñu ñëw fi wala ñoom ñu ñëw fekk si dëkk bii ñuy wax Sénégal ate ah, nekkuñu ay sénégalais parce que am na ñoo xam ne ay ressortissants Fouta Djalon la ñu ñoo xam ne fii lañu nekk avant Sénégal di exister nañ ko bàyyi xel ñooñu xam ne ñëw nañu fii nekk fi ay gan nañu xam ni waratuñoo dugg ci problème politiku réew mi. waaye pël fuuta boo xam ne fii la màggee fii la yaru nekk sénégalais bu mu ragal la taxaw revendiquer ses droits politiques ndaxte du ñu ay étranger ku mel ni man fii laa askane Sénégal gi laa juddoo Sénégal gi laa màggee sénégalais la donte ne samay maamaati maam ñoo jógoon Fuuta Jalon ci jamono jooju ma ma doon wax sànq gen baal ma entre parenthèse pour mu leer ci bopp nit ñi donc ñu ngi wax ni euh, dañu laaj tey jii nañu trouver ay solution maanaam dialogue na dellusi si que nit ñi mën a respecter les lois et les règlements du pays ñu ngi ñaan muy kujje gi nañu delloo si fii toog waxtaan gis ay solution yu mën a yóbbu réew mi kanam ndaxte fitna bi kenn bëggu ko euh, pour nag ñi ñi ñuy ootee guinéen ñu ngi leen di ñaan di leen fàttali euh, donte ne ci CEDEAO CEDEAO lañ nekk buy garantir liberté de de de voyage entre les deux pays di garantiir nit koo xam ne jóge na ci espace CEDEAO ñëw ci benn dëkk mën na faa toog sans pour autant ñu koy laaj ay carte de séjour loolu ci loi et réglement CEDEAO waaye nag ñu ngi leen di ñaat rek pour ambassade bi mun a xam ñan ñoo fi ne nañ dem inscrire am seen carte consulaire euh, pour autorité sénégalaise nañu comprendre ni fi Sénégal toll kenn warut a nangu ñu dugal ko ci guuta commencé par ñoom ñi yore nguur gi nañu toppatoo nit ñi respecter seen àq ak seen yelleef parce que li ñu def. ay jigéen fekk leen ci seeni kër ñu ngi yore seeni doom di nàmpal jël ñu mol ni cent quarante personnes taxañ leen yóbbu leen frontière Kédougou sànni leen foofu amul kenn ko leen di toppatoo loolu dafa ëpp nañu bañ a utiliser nag ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a utiliser un discours ethniciste buy tax yow nga mën a jël benn askan joxoñ ko ne dañoo bokk ci ay forces occultes te nit ñi xam nañu loolu du dëkk kon nañ ci bàyyi xel ñi ngi wax ni ñi ngi ñaan sénégalais guinéen africain ñi nga xam ni ñoo nekk fii ñuy wax Soudan occidental comme ni Léopold Sédar Senghor doon wax mu ne ko doomu aadama ci seen bopp ñi ngi na ñi ngi jël ni ñu wax refondation de la civilisation de l'universel maanaam tabaxaat civilisation boo xam ñépp a ko bokk loolu ñu ngi ko jëlee fii ci Sénégal te ñun nañ xam ni tamit loolu mënut am lu dul ñu indi dialogue culture ak civilisation kon nag maa leen di gërëm di leen sant. dafa am ñetti mbir yoo xam ne dañ koy bëgg a wax tout le xam ngeen euh, ñun bu sama suñu ambassadeur bu ñëwee fii. ñu lan lañ koy njëkke ñaan pour mu defal ñu ñetti la benn bi mooy ñu dimbali ñu ñu am carte consulaire di diir bu gàtt ak mu bañ a seer ak ñu am suñuy papier yi ñu war a soxla ci état civil ci consulaire ci consulat bu loolu paasee chaque dañ koy ñaan fu pepp guinéen fu mu nekk fii ci réew Sénégal bu amee difficulté mu ñëw wàllu ko mu jàppale ko ci mu gën a gaaw ñetteel bi mooy bu ñëwee na xool ñun communauté sénégalo d'origine guinéenne ñu dundee ak communauté sénégalaise ñoom it ci ñaar état bi mooy état bi ne ak état Sénégal ñoom it nañ ko jàppee noonu ñu doxalee ko noonu ndax ñun ak yéen benn lañu ñoo bokk liggéey bokk fu ñuy toog waxtaan ñooy bokk defandoo lépp te ba pare dañoo bokk di séyante suñuy diggante donc dañuy ñaan chaque fois bu suñu ambassadeur ñëwee dañ koy ñaan moom it mu vraiment mu defal ñu yi mooy suñu yitte fii bu loolu passé avant suñu représentant diplomate bépp ku fi ñëw muy ambassadeur buñ toogee di waxtaan dangay dégg mu naan vraiment ñun dañoo kontaan ci yenn communauté guinéen ñu nekk fii parce que état Sénégal nee nañu yéen da ngeen respecté seen liggéey xam ngeen seen liggéey rek ak seen julli dem julli ci jàkka bi moom ngeen di dem vraiment maa ngi kontaan ci yéen waaye nag gis nañ léegi depuis quelque jamono. affaire bi dafa xaw a changé ci tous les côtés mooy suñu côté mooy ci lépp ñu koy gis ci réseaux sociaux ñu gis aussi suñuy côté côté ñu nax lu ñuy wax mooy loolu suñu pàpp yi ak suñu maam yi fi njëkkoon ñu jëlewuñ ko ci ñoom ñoom dañ ñu jàngal ñu liggéey topp suñuy diina ak suñuy njaboot ñu wax ne ñun ak yéen benn la bu ngeen gisee aussi monsieur le ministre Serigne Mbacké toog yi du question politique du leneen dañoo jaaxale fukk bunt yu bari waaye buñ ko jotee def ñu ubbil bunt bi ñu wax ko suñu yitte ak lu soxla mu jóg taxaw jàppaliñ bi comme na comme te ñun dañoo nekk nit ñoo xam ne aussi dañoo dañu jox responsabilité communauté bi bu fekkee gis nañu kenn koo xam ne dañ dafay taxaw pour jàmm Sénégal ak jàmm communauté guinéen ak jàmm entre Guinée ak Sénégal moo tax ñu ñu sawar ci loolu pour ànd ak moom te ci liggéey pour jàmm am Sénégal du leneen donc ñu ngi koy gërëm kilifa yi aussi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu politique dañuy gis rek loo xam ne vraiment comme sama mbokk yi ni ñu ko waxee ci lu am fii mooy diggante état ñaari état yi am loo xam ne c'est am na yu ñu yóbbu ci frontière ba du lu ñu rafetlu mais dañoo wax ne que entre communauté Guinée ak communauté Sénégal ak ñaari état yi bu loolu xewee buñ ko waxtaanee xëy na mun nañ trouver solution lu gan loolu moo tax ñuy ñaan état bi état bi jàpp ci loolu vraiment lu mel loolu ñu xool nuñ koy defee te mu gën a rafet kontaan nañ nag ci sécurisation parce que fii bu fekkee Sénégal amul jàmm ñun ñu am jàmm fii keroog affaire bi bi mu amee amul kii guinéen la kii malien la kii leneen la kii français la kenn liggéeyul comme jafe-jafe bi ñun ñëpp a ko dund lu ñu war mooy ñu ñaanal Sénégal jàmm parce que jàmm bu amee ñun ñëpp a ko soxla ñun ñëpp la kenn du wax man fii laa ba ko affaire bi du ma dal loolu vraiment ñu ngi rafetlu force de sécurité bi ñu taxaw pour vraiment sécuriser réew mi ñu ñëpp a mun nañ wax ne vraiment ci liggéey lañ def ñu kontaan ci gouvernement bi. ñii gënuñu leen dëkk Afrique gënuñu leen dëkk Sénégal comme j'ai dit seeni maam maamaati maamaati maamaat fii la ñu juddoo si vous allez à Thiès par exemple am na quartier bu tudd Mbambara Alilo le quartier Mbambara c'est du temps du Dakar Niger et tous vous avez lu par exemple la grève la grève la grève des cheminots de 1947. c'est eux qui avaient dirigé cette grève là hmm. dëkk Mbambara Alilo am fa ay sët am fay sëtat am fa tout et pourtant beaucoup d'entre eux sont d'origine ou nigérienne donc dañu jàpp ni ñoo bokk Afrique ñoo bokk la sous-région donc waruñu mën a def distinction entre kii sénégalais la kii malien la kii guinéen la c'est pourquoi ma ni suñu doom yi juddoo France wala Amérique wala Italie dañuy wax ne am nañ droit ci nationalité foofu ñu juddoo d'ailleurs am na sax jigéen ñoo xam damay gis bu ñu ëmbee ba diis yoxoosu dem États-Unis wula ñu dem France pour am fa doom alors pourquoi ñun li ñuy revendiquer suñu diggante ak européens yi ñun entre africains duñ ko revendiquer te ñoo bokk lépp suuf si ndox mi diine gi souvent mbokk gi tuutu guinéens yi sëy ak sénégalais sénégalais yi sëy guinéens ainsi de donc mënuñu fexe ba du doon une même nationalité parce que olof yi ñuy wax ne benn bopp kenn du ko xar ñaar donc bii bu ñu ko jéem a xar de la même manière ma wax ni juróom-benn réew yi ma lim léegi xëy na man mi koy wax sax samay sët peut-être duñ ko fekke mais c'est pas important Kwame ma yàgg na wax les États-Unis d'Afrique amagul ba léegi mais ñi ngi continuer di ci wax d'ailleurs bokk na ci li tax CEDEAO wax nga am na ku ko cité léegi CEDEAO am donc nit ki da ngay samp loo nga xam du sa njariñu bopp. mais say sët ak say sëtaat ëllëg ki si biir mën nañ ci egg ba suñu réew yi nekk ay réew yu yu yu am solo donc loolu suñ ko bëggee il faut que ñu poser les vrai débats xeex ci xeex pousse nos gouvernements les parlements les hommes d'affaires ba ñu arriver am un gouvernement sous-régional entre pays yi nga xam moom laa lim loolu nag suñu ko bëggee ñi ci jiitu ñi war a jiitu ci combat bi c'est la presse euh, malheureusement dans nos pays boo jëlee un journal fait divers la ñuy jëkkali teg ci sport teg ci politique teg ci peut social soo ko mujjee économie c'est ça nos nos nos nos états mais vraiment j'invite la presse ñu def débat yooyu des débats essentiels di ci laaj ni nit ñi di ci wax nit ñi di ko organiser ay waxtaan parce que bokk naa ci ñi gëm ni njariñu Afrique avenir du Afrique ci loolu la nekk mais nekkul feneen quant suñu frère yi. seen démarche dama koy rafetlu encore une fois nekk nañ ci réew mi nekk nañ fa ak seen i mbokk situation am na wax nañu ak seen i mbokk parce que ñu leen di jëkk wax mooy respecte leen loi loolu ko jub moo koy def respecter leen loi wu réew mi ngeen nekk def leen li nga war a def ci réew mi ngeen nekk bu leen dugg ci lu ngeen warul dugg bu ñu waxee loolu ba pare nag wax gouvernement Sénégal aussi ni ko amale yërmande ci askan wi parce que ñii ay sénégalais lañ ko donc am une fois maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant bu baax euh, loolu rek laa ci bëggoon doole merci beaucoup.